asalaamaaleykum yéen waa Nindi maa leen di nuyu di leen ziar di leen jéggalu ñu ngi jéggalu ci xaar bu yàgg bi ñu ngi leen di jéggalu bu baax di ñaan suñu ñëw bi ñu ñëw ci yéen yàlla buñ nañ fi dellu si waat di feete suñu victoire ñu ngi leen dañu ñëw fi tey ànd ak ñi nga xamante ne moom dañ leen limal pour ñëw saafonteeg yéen ñëw ñaan leen le 24 février dañu jëm ci ay élections élection yi dañ ci am mbër boo xam ne dañu bëgg a mu daan mbër mi mooy président Macky Sall photo mu ngi nii ka kartam beige marron la mooy yëre yi ngeen sol dañu bëgg jour élection yi bu ngeen xëyee suba teel dem leen ngeen voté jël ko seen i dëkkandoo seen i am di jàmm ngeen dem seeti leen ñu dem génn dem voté ko ñu teel a féete victoire am ndax li tax ñu war a voté président Macky Sall nee nañ cin bu naree neex bu baxee day xeeñ te am na loo xamante am na loo xamante ne tàmbali na kook ñun te fas na ko bu amaatee beneen mandat mu yeggali ko DER bi dañoo bëgg lu fi dugal benn ñu dugalaat fi fukk ci beneen mandat bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen di ñaanal taw féex suñu dëkk bii bu ñu tuddatee Touba euh, ville sainte ñu njëkk tudd nit ñi ñu si ñu xeex yéen ñeen ci ñu mën a jàppale. Ah, ceeb biñ leen fi andil ceeb biñ leen fi andil. xam naa ceeb yi ñu leen jox jeexagul ndax mënagul a jeex waaye indiwaat nañ leen leneen loo xamante ne dañu bëgg ngeen maxal ci ci biir campagne bi yéen ak seen i njooñ di waxtaanee président Macky Sall di waxtaanee bilan bilan wam ba keroog le 24 incha allah. julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam maa ngi yëkkati sumay kàddu ci turu pôle bi nga xam ni moom la yàlla dogal ñu seq ko tey di docteur Alioune Sylla ku ni docteur Alioune Sylla nag xel yépp dem ci le social l'engagé l'incontournable rien que pour la réélection du candidat Macky Sall au soir des élections docteur Sylla ñu ngi lay sant di la gërëm di wax ni nag mention spéciale lañ koy defal te lool it waxtaan nañ ci ak président pôle bi ak ñu ñu seqal pôle bi yépp ndax ngiraaneen fii ku ne xam na ni amoon nañ jafe-jafe ay lumière bi ñu ko amee ay xale yu engagé muy Cheikh Ndiaye Khadim saw Khadim Ndiaye Thierno Sarr wër quartier bi yëpp xool lamp yi fi am problème ñu exposé ñu ko man ak taal mi ma taxawal mu nekk Sénélec nekk fii moom it di fi yëngutu ci APR ñu waxtaan ci ak docteur Silla docteur Silla ni ñu xool leen def leen étude bi ngeen jox ma projet de budget bi projet de budget nag buñ koy joxee dañ koy valider baa ñu invalider ko mais biñ ko ko joxee mu xool dani lii dama jàppoon ni waroon ngeen a mën a jël sax lu ëpp lii mu nekkoon quatre cent soixante trois mille et quelque docteur si la joxe cinq cent mille francs rond pour lumière yëpp mën a tàkk kon docteur ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm di la wax ni waa Ngiraneen ñu ngi lay encouragé bu baax te di la wax ni ni ko jeunes yi waxee au soir des élections ñun slogan bi ñu jël muy que chaque gagne chez lui et on gagne partout kooku dinañ ko matale et incha allah nous allons gagner soxna Fat Bintou bala nga fee jóge nag yow moom dañ lay sës ci miir bi comme niñ koy defee ndax xam nañ la su ma nee dañ lay sës ci miir bi yéen jigéen ñi yéen a koy sës ci miir bi ndax projet yi projet yi ci boppam laa bëgg nga wax ceeg jigéen yi na ndax fajar gu jot ku la romb yor paan baa mu yor siwo boo ko laajee foo dëkk dina la ngiraaneen foo jëm mun la ca domine ba damay jaayi jën kon donc ñoom mérito nañu ay projet kon donc soxna si bala ngaa dem na wax ak ñoom waaye nag tëb tëb dal ndax dañuy wax ni fii ci Touba nag la donne a changé Touba votera Macky Sall incha allah mu am nag kilifa yoo xam ni. li ñu war a def yëpp def nañ ko keroog ba ñu waree falu fal nañ leen bi ñu waree folleeku nañu gëm yàlla jàpp doomu jàmbur tëj ci kaso bi sa doom def lu raw la koo ko defoon nga ni kenn du ko tëj loolu damaa jàpp nag réew mi amul ñaari justice Idrissa sekk amul bàyyi kan moo ko tëjoon ab lay Wade Karim Wade amul bàyyi kan mooy bàyyam Ablaye Wade waa mais bu defee lu jar ñu tëj ko duñ ko tëj ñu tëj sa doom nga taxaw ni sama doom kenn du ko tëj ay élection du am noo dama jàpp ni nag am na ñoo xam ni fàttalikuñu leneen leen yi lebaloon am na foo xam bu ñu fa tolloo dañoo war a fay bor sénégalais yi fay bor mooy toog jàpp ba set man de sama baay bu amee juróom-ñeent fukki at ak benn danaa ni ko papa demal nga toog ca kër ga yor sijaada yor course ñaanal ñu bi ngeen di ñëw gis ngeen fi ngeen jaar su nawetee taxi boo ni ngiraa neen mun la foofu baax na te ngiraaneen ay nit a fi dëkk ñu bëggoon ñu jàppale ñu ba fii ñu mën koo def tali bi ci toppit mooy marché baa ngi nii à deux pas gis ngeen ko ni mu lëndëme bu dul woon làmp yi jàpp naa ne dana am problème ñu bëggoon ñu jàppale ñu ba marché bi xam naa ni dañuy gañe ñun dañuy gañe comme dañuy gañe nag nañ ko inscrire ci marché état bi ndax un promoteur moo ko gañe woon kon nañ ko ci inscrire ñu mën ko àggali la social nag loolu moom dañu koy bàyyi ci diggante ñett ñii lañ koy sës te dañ leen di sës ci miir bi muy docteur Alioune Sylla ndax xam nañ bu baax li sa doom man yàlla na ko gën a man ci sa wet ak ci wetu ñi mu àndal ñëpp di leen jàppale sës ko Amadou Fall nay de ndax dem naa Dakar am na joon woo xam ne julli nañ ci ñaari jàkka waa jàkka ja di la ñaanal ndax yaa tabax jàkka ya man ak yow ànd nañu benn bi Mermoz la bi ci des Patte la kon xam nga li ma wax. maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak santam. ah yàlla nag dafa def zone ndindi bi nga xam ne bii muy zone boo xam ni macha allah ñu am ay xale yu jub xale yu baax xale yu gëm sëñ Touba xale yu gëm sëñ Fallou xale yu gëm sëñ Abdou Karim ñu ànd nekk benn. yéen nag dara réerewu leen ni zone yi fii ak Touba am na pëccaxoo yàlla dimbal nañ nag ci barke Sëñ Fallu bu nu defaru nun bëgg a nekk exemple zone yi bëgg a nekk exemple dep euh, commune Touba soxna Faat Bintu moom mooy sëñ Abdou Karim mooy mooy mooy yaay puy mooy mooy mooy dafa am dafa am baay defal yàlla ak yaay defal yàlla nun ñii ñooy baay defal yàlla yi moom mooy yaay defal yàlla yi ba moo tax ñu ngi sant yàlla di leen wax ni zone ndindi ñu ngi leen di nuyu ba ñu bëgg sax ñu def jumelage ak zone yëpp bu ko defee dëkk bi ñëpp xam ne benn lañ xëccoowuñu kenn ci suñu biir nañ fexe ba président Macky Sall gagné. doléance yi am ñoom danañ ci taxaw marché bi ngeen waa ak yokk lumière yeeg ak ndox mi bu ñu déwee ñoo ñun dañ waxtaanaat parce que nun dañu bëgg a dimbale ñëpp ndey ji seex lañ bëgg a nekk. su ko defee ku ne gis sa bopp léegi pour ngeen doxal dinaa leen joxaat cinq cent mille ngeen di ci def ay lu ngeen di doxal bu nu paree nag bu nu paree nag masa l'honorable euh, Modou Faye Naldé ak ak le maire Alaaji Ndiaye ñoom it ñu ñëw seet quartier bi xam li ci war ñu def ko soxna Fatou nag soxna Astou Pouye nag moom moom mooy maire projet <laughs> day bañ nag man nee naa ko dinaa la feeñal ndax nun amuñu doole Touba ay projet ak jigéen ñi amuñu ku leen jàppale te man yàlla seede na ni yàgguma xamante ak moom mais xam naa ni mën na lu bare bare bare bare ci jigéen ñi te am na ci yéene ndax moom utul dara sëñ Falloo ko ñor sëñ Abdou ma ko ñor waaye nag du fi ne di c'est abi intellectuel la na ngeen ko xool ne jigéen ñi ne ci département bi moo ci dàq jàll jigéen ñi nekk département bi moo ci ëpp relation waaye nag da koy ma man dinaa ko feeñal ndax dama bëgg sama jigéen ñi mu dimbale leen ñu dugg ci DER bi ñu am ñu am ci nit ñi ñëpp amee moom am na presque ay quatre cent femmes yu mu dugal yoo xam ni mu ngi ci deuxième financement am ñun amagoon dara kon nag nan ko reteet mu jàppale nu ngir yàlla ak jëmmi sëñ Abdou Karim mu taxawu leen man daal loolu tax ma indi ko fi te am naa ci moom yaakaar di bi sëñ Moustapha Mbacké ñu fi fekk di tàgg fi toogaayu Serigne Touba. yéen ñëpp xam ngeen ko muy femme boo xam ne bu brave la femme boo xam ne ni ndeysaan ku am yitte la ku bëgg diine waaye ku bëgg lislaam waaye ku bëgg Touba ku bëgg kër Serigne Fall muy ndaw soo xam ne nii wax dëgg yàlla ñun ñi nga xam ne noo dëkk Ndindi muy ñun ñi nga xam ne ñooy ànd ak moom di liggéey muy bu ma ci tuddee sëñ Abdou euh, Abdou Bigué Ndiaye tudd ci xaadim den la ne tudd naa ñëpp sëñ Baba Ndaw muy ñi nga xam ne ñoo coiffé coordonnateur kii euh, comité bu Ndindi bépp kenn ku ci nekk ànd nañoo moom def ko muy sunu jigéen di suñu xarit di sunu lépp ngir jàppale ñu waaye ngir jàppale it Macky Sall kon nag sunu àndee moom ñëw Ndindi gii sëñ Bass wax lool ne dana ko sës ci miir bi ngir lan ngir mu jàppale soxna yi loolu dafa am yaakaar ci moom waaye yaakaar naa ni yéen soxna yi ah bala ngeen ko mën a sas nag ci miir bi dama bëgg yéen itam li mu bëgg ngeen jafal ko ko looloo mooy lan président Macky Sall gagné élection yi ñu ñëw fii bu ñu taxawee ci fii ci Kër ñan ñu ne bureau yi ne Kër Ñang yëpp Macky Sall jël na ko raafal na ko loolu bu boobaa boo liggéey bu ñëwee fii deer beeg leneen lu raw deer bi lu ne da ngeen ko gis fii am na doléance yoo xam ne sëñ Bassirou wax na ko léegi danaa leen ci jox benn boo xam ne man maa fekke maa fekke nag euh, dee nañ ko xamu nu ko la fi waxee waaw maa fekke président de la république Macky Sall ma taxaw premier ministre taxaw ministre de l'intérieur taxaw Cheikh Bass taxaw promoteur bi yoroon marché bi taxaw ñu taxaw promoteur bu ne ko marché bii Ngiraaneen laa bëgg président joxe ay instruction ci sama kanam kon li ci des bëreetul yaakaar naa ne incha allah bu nu woon élection yi marché bi moom taxaw na loolu moom amul lu ma ci wax maa ko fekke maa ko fekke ci kër Sëñ Touba ñu toog maa fekke nag moom amul wax ca man Sëriñ Tuubaa yàlla rek ma tax di wax du ma bëgg lu leen neex wala neex koñ bi ma wax ay fen li nga xam ne daal moom la ñu dénk ngiraaneen mooy bu bis baa nañu fexe ba président Macky Sall gañe fi gañe gi nag du dajaloo naan nii rek di wootee ko woox ak a tàccoo ko déedéet gañe gi mooy lan jëli seen i carte d'identité carte d'identité yaa ngi fees dell na ci sous préfecture bi kenn jotagul say carte d'identité bañu ba nag trop tard ba mu des ñaari fan ñetti fan ñuy xajloo ko ba buux buuxloo di wut sa carte d'identité ngir bëgg a euh, euh, wote loolu amul njëriñ aouzu billahi mina sheytaani rajim ñu ngi leen di baalu àq ci turu délégation bi ñu àndal ndax xam ngi nañ ne xaar ngeen ñu lu yàgg waaye nekk ci liggéey bi moom moo ko waral soxna yi ñu ngi leen di nuyu di nuyu borom kër yi di nuyu njaboot gi yépp di ñaan li ngeen sumb yàlla na leen ci yàlla defal jàmm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 pour joxaat président deuxième mandat. Mm. ñu ngi koy ñaanal ci barke Serigne Touba yàlla na ko yàlla may. yéen nag dégg naa li ngeen sollicité. sa sollicitation luñ ñu wax ci wàllu financement rek deer a tax kon ñu ngi ñaan président mu amaat deuxième mandat jàmm. deer bi bu ci defoon benn na ci defaat fukk. ndax deer bi ñëpp a ngi ciy gis seen bopp. Mm. ay financement daan na am gaa. waaye ni mu taxawoo deer bi jigéen ñëpp gis nañ ci seen bopp ci Sénégal couche bi gën a vulnérable gis nañ ci seen bopp kon nañ ko ñaanal mu amaat deuxième mandat mu defoon ci deer cent milliards yàlla mayaat ko mille milliards yu ñu ci des ba jigéen ñëpp daj ci àdduna waxuma la jigéen ñi waaye jeunes yi tamit dañ coo dañ cee bokk jeunes yi tamit war nañoo leen a taxawu ba ñoom it seen i mbëbët ñu yegg ci euh, docteur Sylla lim leen fi defal moom it ñu ngi koy félicité nu mu zone bi noonu la taxawoo zone yëpp gannaaw bi ñu defee euh, li nga xam ne mooy visite yi nga xam ne moom la président digle woon pour ñu dem ci askan wi saafante ak ñoom waxtaan ak ñoom wax leen projet yi nga xam ne moom la président amal ci réew mi ak yi mu nar a naal yëpp ba ñu def ci liggéey boo xam ne liggéey bu mucc ayib la ñu dellusiwaat fii ci GES bi ànd ko suñu coordonnateur Alaaji Ndiaye ak suñu doyen Abdoul Ahad Diop ak suñu trésorier suñu finance euh, euh, Abdoul Ahad Mboup rek nga gën a mën a piloté li nga xam ne moom la ñuy liggéey liggéey bi nag euh, ñu ngi ko composé ci waa son euh, de Ndindi bu ñu ne zone de Ndindi nag dafa am yoo xam ne da leen a boot boot ay dëkk yoo xamante ne dëkk yu am impact la ci li nga xam ne mooy électoral bi nga xam ne moom la ñuy waajal 24. Euh, dëkk yooyu gannaaw bu ñu tuddee Ndindi ba noppi ma sa jaa tudd lu mel ni ki Bogo ma sa jaa tudd lu mel ni ki Daaru Bogo Daaru Rahman Pofdi Kër Kabbu ni ki noonu Kéré Mbay kere Ndaw niki noonu Mbàkke Bari niki noonu xaar Mbayeen ak dëkk yi nga xamante ne ñoo nekk ñoom lañ boot seen gannaaw te amuñuy bureau waaye di war a woote si ci bureau yooyu. ndax ren dañoo bëgg li nga xam ne mooy bureau yi nga xam ne ñoo aju ci Sendé ak li ko wër président Macky Sall gagné ko massivement loolu moo waral ñu ànd ak soxna si Abdou Karim ñu koy wax soxna faati bint Pouy nekk koo xam ne ñay yu xare la dara ñu rek lu may jàppale président pour mu amaan ndam mënuñu jàppale ci liggéey bi ba tax ñu gën a ñeme bu baax a baax. li ñu fas yéene daal mooy bu ñu àggee le 24 février incha allah balaa jant so danañ jox président ndam loo xam ne ndam lu rafet la. li nga xam ne mooy suñu objet général na mooy ndindi moom li mun Mountakha waxoon rek ku dem mu dem ku demul mu dem ndindi fokk day gagné bureau te loolu la ñu bëgg mu gagné bureau yëpp massivement gagné goo xam ne gagné gu rafet lay doon. ñu ngi leen nuyu di leen gërëm ci tournée bi nga xam ne tàmbali ngeen ko ngir seen campagne ngir fas yéene falaat seen président muy Macky Sall deuxième tour. coow leeg lépp ak mitin yeeg café yeeg yëpp am na njariñ nii la rek waaye li ëpp njariñ mooy kenn ku ci nekk fexe ba jot sa carte d'identité xam bureau bi ngay voté carte d'identité yi nag kenn ku ne xam na ne ndindi bureau de vote yi ren dañoo amaat huit bureau de vote yoo xam ne ajuwaat na ci Touba ci commune Touba huit bureau de vote yooyu nag am na ñoo xam ne dañ leen a jëlee ndindi yóbbu leen baar yi ñenn ñu jëlee leen foofu yóbbu leen ci yeneen gox yi gox bu ci nekk kon nag ku ci daan wotee fenn na gëstu ba xam man maa ngi dindi ba léegi wala toxal nañ ma. di leen xamal ni tey jii sunu jataay bi tey mooy euh, dañ fee daje ngir maanaam euh, euh, am ndaje moo xamee ni les responsables yi nga xamee ni dañ fee nekk maanaam ci zone bi tey ñu bëgg leen présenté ñu présenter leen ki nga xamee ni mooy président d'honneur bi di docteur Aliou Sylla ak président bi nga xamee ni mooy euh, Amadou Fall Naydé ak le coordonnateur Alhaji Falilou Ndiaye ak son adjoint maanaam Baba Ndaw kon tey jii euh, du ñu guddal sax mais présentation boobu dañ koy def ngir xamal ni ñun sunu zone bi bi ñu tàmbalee liggéey ba léegi maanaam kenn déggu fi coow te loolu lu am solo la xamal ko tamit parce que dañoo nekk ak sunu naataangoo yoo xamee ni dañoo yor ay zone nekk fi waaye ñu bëgg leen a xamal ni ñun ñun ñii nekk zone de ànd nañu nekk benn maanaam fas yéene liggéey ngir président Macky Sall maanaam